effectivement euh, kon ñi nga xamante ni moom mooy loolu c'est c'est un constat général mooy les conditions de détention mhm. ñëpp xam nañ ni c'est des conditions yi nga xamante ni mhm. euh, nañu ko mais lan moo lan lan lan moo xew ba ba mutinerie bi ba mutinerie bi am baabu loolu jar na jar na taxaw contrôle la woon fuy la woon fuy dafa nekk li nga xamante ni yoon la administration pénitentiaire war war ko def daf dañ dañ dañ ci am yoon mën nañu fouiller détenu buy dugg da nga koy fouiller buy génn également donc bu génnee dem ñëw da nga koy fouiller mais également les euh, l' administration pénitentiaire les gardes mën nañu toog ba heure bu leen neex fouiller fouiller chambre loolu c'est un c'est un droit mm-hmm. et c'est naka la naka ñu war a war a fouiller mooy respecter la dignité des détenus mm-hmm. loolu mooy loolu mooy loolu mooy li nga xamante ni mooy yoon mais détenus également dañu war a nangu ñu fuyee leen pour man buñ kenn ku nekk bu respecté woon la nga xamante ni moom loolu la ko yoon may mhm. mu def ko lii du am parce que euh, garde yi signalé lañ leen peut-être am na présence su chanvre indien si euh, si kii ak des téléphones portables donc munoon nañu mënoon nañu fuye effectivement nu mu ko waxee dëgg la fuy bi c'est pour la sécurité d'abord des détenus mhm. parce que par exemple bu nekkee objet bu dangereux dafa nekk ci chambre bi mën nañu xeex entre ñoom jamante rayante bu bu nekkee fuy amul bu nekkee par exemple chanvre indien dafa nekk mën nañ ko di ko nekk di ko tux di ko tux entre ñoom bu nekkee téléphone portable également dafa nekk mën nañ di communiquer ak le monde extérieur mm-hmm. Mm-hmm. te loolu c'est très dangereux mm-hmm. c'est extrêmement dangereux parce que da ngay gis ah? ñun dañ koy dañ koy couvrir au tribunal dafa dañ koy couvrir da gis par exemple un détenu boo xamante ni mu ngi à l'intérieur de la prison di waxanteeg ay gang yi nga xamante ni ñu ngi si biti di teg ay di di continuer di def yooyu loolu ah noonu c'est très dangereux pour man téléphone di nekk di nekk ci biir ci biir prison mais nañu ah, nañu nañu respecter li nga xamante ni moom mooy les règles euh, man man man aw ma si benn doute pour man ñi nga xamante ni ñooy l' administration pénitentiaire ils sont très bien formés. Mm-hmm. pour man am na une formation parce que bu nekk woon euh, formation bi ñu am. affaire bi mënoon na mënoon na gën a empirer wu. Mm-hmm. mënoon a gën empirer wu yaa ngi koy wax utiliser nañu utiliser nañu des grenades lacrymogènes c'est de leur droit parce que bu nekkee par exemple les gardes les autant pour moi les détenus amuñu am euh, respect dañoo euh, dañoo enfreindre mm-hmm. a ñu indi violence ñoom am nañ droit utiliser par exemple la violence pour mën leen a maîtriser mën leen a kii pour man pour man ce qu'il faut c'est vraiment de respecter les règles qui été édictées ñi nga xamante ni ñooñu ñooy les gardes respecté li nga xamante ni noonu la leen yoon mayee ñu fuyee ko ñuy fuyee noonu mais également ñi nga xamante ni ñoom ñooy les détenus bu ñu ñëwee di leen fuyee ñu nangoon dañ leen di fuyee mhm. dañ leen fuyee et également fuy bi gën a rigoureuse baabu il faut fuuy bi gën a rigoureuse parce que c'est vrai mën nañu gis nañu gis nañu moom mooy moom moo yor sécurité <laughs> sécurité prison bi uh-huh. li mu li li mu wax que dañuy dugal ay puces ci ay pomme loolu def dañuy dañuy dugal puces ci ginaar Euh, piqué ko si euh, kii <laughs> mais pour man fouille bi war na mën a gën a rigoureuse même bu nekkee période tabaski la rek il faut des scanners xam nga mhm. amsal ak nit voilà à vue euh, ni comme ah, ça dafa am loo xam doo ko mën effectivement comme li ma wax le principe de cumul de marchandise bu ñëwee yorul scanner doo dem effectivement far ñu am scanner scanner bi lan la c'est c'est prévu pour tout ce qui est métal tout ce qui est coltan vous savez les portables là on fabrique avec du mhm, mhm. donc yu mel noonu bu jàllee da koy gis signalé ko mais actuellement dans le monde où nous c'est tellement difficile tu sais tu sais même là